ñooy wax du naan parité man ne leen man génn parité amul ma jëm mooy euh, comme compétence la bu doon fukki jigéen ay teg la te jigéen ñëpp gën a fi baax ci réew mi ci li leen fal waaye teglante boo xam ne